saarifan himmati li rabbi taala ci digalal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides ci kilifteefu Serigne Bara Mbacké moom Cheikh euh, ñu ngi fii ci Touba Thiawéne di waaj ubbite jumaa Touba Thiawéne la 28 juin mu àndak ak mu tolloog bisub àjjuma maanaam buñ tabaskee ba pare àjjuma ji ci njëkk bu dellusee mooy doon ubbite jumaa ji mooy doon màggal ak Thiawéne li ñu fi dajale mooy jullik jumaa Thiawéne àjjuma ji topp ci tabaski jee ca topp mu dajeeg ñaar fan ak juróom-ñetti ci weeru juin la oote ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yépp waaye mën a nekk caayoo ñu ngi lay oo ci seen ubbite jumaa ji mag ñi fi nekkoon du mag ñu sell ñu baax ku dem ku ne bàyyi nga mébét kon ñoom bàyyi woon mé woon a mébét defar jumaa kon bu seen seen seen seen takkoo ak ñëw gi ñëw ci saayir ba taxawal lu mel nii ñu jar a jaajëfal lañ ñu jar a lañ ay caawiin ne war naa war naa mën a am lu ne dëkk boo xam Serigne Touba ñëw na fa ñetti yoon fekk fa suñ maam suñu saw ak rakkam suñ ngeen saaw suñ ma saaw suñ jébal malle jumaa jiitam alaaji baara xalif sanaal dungu ne boobu mooy moo Serigne Touba moo xool Serigne Touba moo tegoon xeer wi ma ne ko ah sant nañ baax ñetti yoon suñ Mourtala ñëw na fi ñeenti mënu ma itam ñëw naa fi te dana àgg ak jàmm kon àgg na ak jàmm ñooñu ci woo ñëpp nag sëñ Maodo Mbacke sëñ Mourtala moom sëñ Mourtala sama sëriñ maa ngi ko ci woo ak waa sëñ Mourtala gépp ndax wax dëgg yàlla jàppale nañu lool Cheikh Moutalla moo nu joxoon bis bi dee nag fàttaliku Serigne Touba ñett yi ñett ñett yoon yi fi ñëwoon ba jig na caayoon loolu wax dëgg yàlla. moo dem njaboot Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul li ko tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha ba Cheikh Mamadou Mourtada soxna Faati Ja Mbàkke ba ci soxna May Mootu Sukra waaye di ko yëgal maam njaboot mbooleem Cheikh yi maam ma Fall ba ci Serigne Mor Seck Rijaal mi nga xam ne bokk na ci caat yi. di ko yëgal képp koo xam ne yaakaar nga Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Mbàkke ak Mbusoobe ci turu xalifob Caaween waaye ci turu ki nga xam ne mooy kilifa nekk Seex Lamin Baara Mbàkke moom Seex Abdul Ahad Mbàkke mi ngi ko yëgal mboolem ay bokkam mi ngi ko yëgal waa xur wi bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu fenn bàyyi wuñu ñenn ñi ngi ñaan képp ku fi teew yal na la faj sa aajo julli jumaa jàng alquran màggal gi ak jumaa ji la ñuy boole bu ñu xëyee dañuy dem ca béréb ba Serigne Touba ñëwoon danañ fa jàng al alquran ba midi ñu woo ñëpp ñu àndanoo ñëw ci dëkk bi julli jumaa ji xéewlu bu tàkku sanee ñu waxtaan Cheikh Moulamine Bara Mbacké si moom Cheikh Abdoulaye Mbacké yeewi ñëpp ñu ngi ko yëgal le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye di ko yëgal le premier ministre waaye di ko yëgal monsieur le préfet de Mbacké di ko yëgal sous préfet de Ndam waaye di ko yëgal nag monsieur le maire Serigne Abdoul Ahad Ka ak mboolem conseil waa Touba Thiawén moom maanaam ci sawu héliport bi la ne dendeeg escarlon bi digganteem ak jumaa ji 7 kilomètres la digganteem ak Mbàkke 3 kilomètres la fépp koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sëñ Baar ne mi ngi lay woo ci bis bi bis bi daal ñor na ko lool wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.